ku nga xam ni tey soo demoon si benn béréb mu am junney nit nekk fa mu am benn place place boobu yow doon jox waaw suñ la rombee si mbedd mi simmi seen ñaari dàll jox la ñaari loxo tàll seen loxo nga tëf làmb seen poche lu si nekk yaa moom moo xam ñaan nga ko moo xam ñaanu leen ko yow yaa moom ma ni que nag euh, peuple bu nga xam ne bii nag defal na la loolu waxtu bëtam xonqe rek su geesoo war na la gis loolu rek moo tax ñuy yëngatu si yenn yi nag moom dogalu yàlla la wallahu yaxkumu laa muaqiba li xukmihi wa huwa sariul xisaab awalam li xukmihi yàlla ne maay jël wàllu suuf daggat ka ba mu jeex ñu laaj boroom xam-xam yi naqsul atraaf mooy lan ñu ne al ulama euh, wal fuqaha waa Seydina Abbas di bàyyi taxu yonent bi nee na képp kuy def lu baax si kaw suuf rek dugg si wallahu yaxkumu la muaqiba li xukmihi eh, sa maam si xaajmaa yi bu ñëwee tàggi ka taawam bu jiyam soxna Fass si dafa ne e eh, sa maam xalifa ne e boobu dafa daggal istigfaar ndax nee na luy sama yoon si faat si bi ko yàlla di bind tàgguwuma yàlla dafa nekk buur nekk boroom waaye boroom la gën nekk buur boroom nag dafa am yëfu boppam mu ñëw dénk la ko waxtu wu ko soxlaa ñëw jël si man alaaj Malik lu si sama yoon bam naan eh, ay dem sa aaya wallahu yaxkumu laa muaqiba li xukmihi wa mu feeñ nag istigfaar boobu si ay eh, si ay xasaidam yu bare bare wa radni bil qada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmaanu ya allah ni yàlla tey nag man alaaj Malick waa ci nga sama kaw nattu waaye man doomu aadama rek la soo ma joxul kàttan du ma ko nangu soo ma joxul kàttan du ma kon nag jox nu kàttan ñu nangu ko muñ ko kon tey nag sunu waaju yi li wàcc si moom tey ñu ngi ñaan yàlla rek mu jox nu kàttan jox ko kàttan jox leen kàttan Eh, ba ngeen mën ko muñ yàlla mën na ko am na ko sañ na ko yàlla na ko def di ko gërëm nag moom ci taxawaayam si réew mi waaw parce que taxawaayam rafet na ñi ñi waxtu bu seen bët xonqee rek si moom la xalaat mu taxaw fajal leen ko nag lii fi xew jamono yii rek eh, firnde la ci ndax wala fi dañ kilifa du taal daay day fekk daay bu tàkk ba pare wala bi bu tàkk mu ñëw fay ñu nag li nu nemmeeku ci sunu ay at taxawaay boobu ngeen taxawee di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal moo xam gis na leen leen ci responsabilité bi yaatu boobu yàlla jox leen ci ndam loolu moo waral itam tey ñu pëndal suñu ay tànk rek euh, pour ñëw bokk moom naqar bi di ñaan yàlla ki nga xam ni fii moo fi jógee euh, yan naka yàlla nandal si jéeg ko sore di ñaan yàlla mu defar ko rek li mu wax si gaayam yi si alxuraan ni keroog yoomal xiyaam du mu leen wonalee su mu leen dawalalee film bi nu liggéey ci biir àdduna loo gis seen xar-xaru kanam bégte rek ñu boot seen loxo di doxantu si àjjana wujuhun yawma idin naa'ima li sa'yiha raadiya fi jannatin 'aaliya laa tasma'u fiha daaghiya fiha 'aynun jaariya waaw yan naka yàlla defal te yàlla guddal fanam mën na ko am na ko sañ na ko yan na ko def di feddali nag sama cofeel si yow waaw si taxawaay bi nga taxaw en tant que porte-parole di responsabilité bu rëy a rëy ñu fasante kóllëre ndax lépp lu wàcc ci sunu kaw si euh, kaw Cheikh kër Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha wala kër Alaaji Malick yow la góor gi di yabal nga ñëw taxaw ko taxaw bu rafet a moo tey tax tey ñu delloo lañ jukkal si loolu yàlla na yàlla guddal fan wi yal na yàlla leeral yoon wi te moom yàlla naka fi yàlla bàyyi yàgg yàgg wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi yëkkati kàddu yu tedd yu yeyoo daraja ji la xam ne yàlla suñu borom moo leen ko jox di ko yëkkati di ko teg ci sa loxo ak mboolem sa rakk yi di Cheikh Omar ak mboolem taalib muqaddam yi nga xam ne ñoom nga àndal taalib di la nuyuwaat bu baax a baax xam naa Cheikh Mahmoud Mountakha sax mi ngi leen di xaar ci këram léegi ngir saafonte yow nuyoonte yow ndax comme ni nga ko waxee bi ñu ko yëgalee itam jot nañ ko ko mu rafetlu ko bu baax a baax ngir xam ne boo ñëwutoon itam mën na laa teewal ndax xam ne responsabilité bi nekk ci sa loxo ndax boo woyofalee sa jëmm woyofal sa boppit yàlla woyofalu la ndax responsabilité suñ borom la ko jox kon ñuy rafet lu baax a baax tànk yi ak jéego yi ndax jamono ji xat na te am ngay ndaw yu bëree bëri yoo xam ne koo ci yónni woon itam mu doy sëkk ñu xoole ko si jëmm waaye nag eh, sag baax ak sag rafetal ak sag woyofal sa bopp te rasulullahi dafa wax ne man waa rafaahu llah kon loo torox loo torox la it suñ borom moo la yëkkati moo la jox cër moo la jox daraja ji kon ñu la koy xoole di la ko jàppe di la ñaanal itam suñ boroom mu ngi xam ne mooy boroom kàttan di def di dindi yooyu itam mu gën la dëgëral gën a dëgëral sa taxawaay ndax doon coobare suñ boroom la ndax ku la gis xoole la Cheikh El Hadj Malick si waaye ku la xoolit xoole la Serigne Babacar si ku la xool xoole la Cheikh Mouhamadou rakkam yu tëdd yi nga xam ne ñoom newoon ci ginnaaw yëpp di Cheikh Mahodou Mansour sëriñ si Ahmed Tidiane si ak sëriñ Abdoul Aziz si Al kon ñooñu ñëpp tey nga taxaw seen jotaay dikkaale leen kon loolu sëriñ bi nga koy rafetlu yoon mu yëpp ñu ngi koy rafetlu ñoo xamit kóllëre gi nga xam ne dafay yàgg mu doxoon ci diggante sëriñ Touba ak Sidil Hadj Malick si muy kóllëre gu rafet. bokkuk deret boole leen bokkuk diine boole leen kon ñu bokk loo xam ne mënuñu koo séddoo muy loo xam ne lii rek mooy li ci jaadu di ko rafetal maa ngi fàttaliku ci jamono yi Serigne Sidi sëriñ euh, Serigne sama yoon ci Serigne Abdoulaye Ciss ci ku faatu woon ma di ko jaale si tey mu bég lool ba ne ma tey de bu rendi ni daganoon ku sant si lay lay rendi jooju wax ju rëy wax ci la ci ci la rëy mën a mën a yem waaye ñun itam na nga xam ne sa dikk gi noonu la toll ci ñun euh, boo ko woyofalee woyofu ci ñun ndax xam nañ li nga doon te yàlla suñu borom moo la teg responsabilité bi ginnaaw bu loolu lépp jàll itam ci kóllëre ak bokk gi nga xam ne moo dox ci diggante bi di rafet ba ndëgg ni tawar di gën a rafet ñu di ko suuxat ngir li ñu ko lislaam sant waaye ñu di ko suuxat ngir jàmmi Sénégal ak jàmmi réew mi te muy loo xam ne istiqraar bi am ci biir réew mi loolu mooy li ko gën a suuxat gën koo dëgëral kon ñëpp am ci am responsabilité ci sàmm ko euh, di nuyu sëriñ kër si mi nga xam ne mooy alxalifatul am di tarixati tijaniya ba ma fa Seex Mahmoud Muntaxa yónnee bu yàggut bokk na ca kàddu yam wax maa ngi lay yóbbanti ci sëriñ bi nee ko lépp lum dégg méngoowut ak kàddu yi ma wax na xam ne kooko bu fi bokkee it bokku ci njaboot gi xam naa ne foofa itam lépp luñ dégg loo xam ne méngoowut kàddu yi dafa bokk waaye ci njaboot ga kon loolu di kàddu kilifa kon sa tànk yi itam ñëw ngir soxataat loolu ñu koy rafetlu bu baax a baax muy loo xam danga ko def wutu ci ñëpp waaye di rafetlu sa taxawaay ci réew mi ndax li lay yàlla jox ci cër du ma ne doy na waaye ëpp na ndax li nga doon ak cir la jox ci biir kër gi ak li topp ci sa ginnaaw waaye gisoo ci dara eh, day mel ne li la gën a iteel rek mooy loolu nag kon day mel ne boo ko defee masuliya la boo xam ne da nga ko defaaleel defaa defaaleel nga ko eh, Touba defaaleel nga ko Tiwaawoon defaaleel nga ko kër diini yëpp muy muy lu rafet loo xam ne dañ koy rafet ndax xam nañ ne. amu ci lenn loo xam ne yaa ngi koy def ngir sa njariñu bopp loo ci def rek njariñu réew mi tax ndax euh, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké daa wax naan li banki woom banki bënkutub xol nit ñi bu ñu waxut itam seen xel dana xalaat ndax loo xalaat ba jàpp ne xamuñ ko rek na nga xam ne bu ñuy xalaat fa la ñuy kon dara umpewut kon ñi rafet nga rafetlu sa taxawaay bu baax da ñaan suñu borom dëgëral la kàttanal la gën laa may ndam ci